rahmatullah maa ngi sant yàlla bu baax di julli ci yonent bi di wax jërëjëfee Mawlana Cheikh Ibrahim Sall li ma laaj kontaan naa ci trop trop trop vraiment euh, asu balaa may wax ci dara ci anniversaire damay wax ne asu dafa nekk xale boo xam ne macha allah li ma gën a marqué ci moom mooy ëdëb bi nga xam ne ànd na ak moom xale bu yaru xale bu baax la macha allah xale bu yaatu la ku bëgg Mawlana Cheikh Ibrahim la ku bëgg yàlla la loolu moo ñu déplacé jëlee ñu Dakar ànd ak sonn nañ lool fan yi waaye wax dëgg yàlla as amuñu benn yoon duñu pardonné benn yoon ñu bañ a ñëw ci anniversaire am li ñu tax a sawar nag mooy dafa nekk xale war a def anniversaire bu ko neexoon mu defee ko neneen mais mu tànn tudd yàlla ba pare oo ay tuddkatu yàlla ku mel ni man ku mel ni Baye Abdoulaye Dramé ku mel ni Cheikh Tamsir Touré mu woo ñun ñëpp dajale ci benn tànt ne nañ ko tuddal yàlla nañ ko taggal Mawlana Cheikh Ibrahima Niass xale la su ko neexoon mu defee ko neneen mais li ñu gën a sawarloo ci ñëw mooy lim tànn tudd yàlla ne moom lay def anniversaire am ñu koy ñaanal yàlla nag bu baax baax a baax dëgg-dëgg fi mu bëgg a yegg yàlla na ko fa yàlla yeggale yàlla na ko yàlla dimbale may ko réussite ci projet mi yëpp ci barke Maolana Cheikh Ibrahim bu baax la xale bu am yar la loolu lañ xam ci moom. macha allah beneen bi bi ni ko tànn defee mooy tudd yàlla ak tagg Maolana Cheikh Ibrahim Niass sawar nañ ci lool loolu moo ñu gën a sawar sawarloo. pour ñu ñëw xamuñu nuñ koy def wolof jaay dafay wax koo xam ne yow xamoon noo koy def rek nim la def moo tax parce que daf maa bëgg yaayoo ma magoo ma may lépp dañ koy tooñ naan ko sa yaay sa yaay sa yaay vraiment kontaan nañ lool ci moom